di xamal ne communiqué lii communiqué de presse la boo xam ne daanaka lu ñu dund la ci quatre ans yi passé di fàttali ne société bi ñu jógee bu tudd ABSSA mi ngi judd ci jéye ju mag jooju amoon Amérique te ay te ay ay ay soi-disant djihadistes moom mooy defkatu ñaawtee fi jaaree ko ci aéroport yi daal di attaqué woon Amérique ci xolu Amérique ba daaneel fa ay bâtiment ak def fa jéye ju mag jooju loolu ba mu amee mi ngi am ci 11 septembre 2001 2001 2001 léegi kuréel bi nga xam ne moom moo moom mooy saytu kaaraange aéroport adduna bi yëpp daal di génne ay doxalin ak tëralin yu bees yoo xam ne moom mooy aar askan wi ci barab yooyu le dispo yooyu mu génne kuréel euh, disposition yooyu mu génne moom moo waral dëkk bu mel ni Sénégal bu ko tënk ci loolu ba aar ay aéroport am ci la mbébét ne damay aar sama aéroport yëpp ci la société bu ñu naan ABS bi ma bokk ci la juddu société boobu décidé euh, gunge état du Sénégal ak république Sénégal comme sunu réew sunu kaaraange nuñ lépp ànd ak moom ci loolu ba muy ànd ak moom ci loolu dafa dem Allemagne jënd fa ay jumtuwaay yu mucc ayib yu nga xam ne moom la àdduna fépp ci bépp kaaraange ci wàllu dem ak dikk ci diggante Euh, nit ñi fa ñuy nekk ak avion yi dem ak dikk bi mu teg fa loola ci biir loola mu accompagner état teg fa ay ay ay ay liggéeykat yoo xam ne ay ingénieur allemand la indi ñu former leen ci wàllu woowa ba depuis booba ñu ngi liggéey lu mot 14 euh, ans maanaam maanaam fukki at ak ñeent ci ci ci dëkk ci ci biir aéroport bi euh, ma maanaam te defuñu fa lenn. lépp lu ñu fa def maanaam neex na autorité ya fa nekkoon ak ña ñuy liggéeyal muy dem euh, ba travailleur yooyu daanaka 47 euh, la lañu ñeent fukk ak juróom-ñaar la ñoo xam ne euh, ñenn ñi ay dawalkat lañu ñenn ñi ay superviseur lañu ñeneen ñi ay technicien lañu ak ay laveur ak veilleur ñu nekk 47. mais bu yàlla defee Sénégal di dox ba président Macky Sall jël réew mi dafa euh, mbébétoon xëy na peut-être euh, addu euh, Sénégal moo ko laajoon pour lan ñu saytu koom-koomu réew mi ci la ñu ne léegi dañuy saytu koom-koomu réew mi daal di jël suñu société ABS boole kook AHS ne gannaaw moomeelu Karim la dañ koy seet saytu ci la nag CREI daal di juddu ñun ñu def ñu ci administration provisoire boo xam ne cabinet Bécaye seen moom la ñu tànnoon pour mu yor ko daal di ñuy indil ku ñu naan Abdoulaye Diouf mu administré ñu voilà donc euh, euh, bu bu loolu amee euh, maanaam maanaam maanaam ci kuréelu état yi nga xam ne CREI ñoom ñoo saytu loolu di seetu di seetu ba gis ne am na lu lënt ci loola état daal di gagné. li nga xam ne moom la doon jàmmaarloog ña mu xalaat ne ñoom la ñoom ñoo teg loxo ci ñaari société yooyu ci wàllu koom ba mu leen gañee ah ñun ñu foog ne kat ñoom ñu wax ñu ne carrément que par exemple société bi léegi état moom na ko ñaari sociétés yi AHS ak ABS ñëw na léegi gañe nañu ñële état moom na ko ñun travailleur ñu gis ne peut-être que lu état moom te loolu la ñu directeur euh, des transports aériens bu ñu naan monsieur Mathiako Bessane waxoon ak suñu administrateur provisoire que comme état moom na leen kon yéen war ngeen mën nekk employé de l' état dinañu redéployer ci yeneen structure de l' ci loolu lañu nekkoon donc euh, ñu toog fa 14 ans malédiction bi moom mooy bi le 16 le 16 le 30 juin 2016 ci zéro heure fekk ñun ñu ngi euh, ñu ngi liggéey liggéey liggéey bu mucc ayib. ci lañ ñu fa fekk euh, gendarmerie moom mooy fekk benn brigade gendarmerie bien armée ne dañ leen yónni ku leen yónni Maïmouna dooy sekk ministre ba ak kan ak Pape Mayel Pape Mayel Diop moom moo nekkoon directeur des ADS kër dañu war a génn à minuit ah ñun euh, ba dañu war a génn à minuit euh, esprit de patriotisme bu nu amoon ak 14 ans à 13 ans yi nga xam ne defal nañ ko réewu Sénégal ci wàllu dem ak dikk ak kaaraange di dimbali ko Sénégal ci foofa ñu gis ne waruñu réagir dañu war a préserver au moins sécurité ak sûreté bi nga xam moom la ñu àndoon ak état du senegal ba fi ñu toll ñu daal di obtempérer génn ci jàmm bàyyi leen ñu liggéey ñu jël suñuy oto ndànk gaare ko fa mu fab fu baax oto yoo xam ne ci jamono bu ñuy génn ñoom ñëpp opérationnel à 100 pour cent xam naa li mu wax parce que technicien laa ci woon waaw ba nu génnee bon ñu ñu ñu ñu daal nuy xaarloo ñaari fan après ci lañ ñu benn délégation ñëw invité ñu ci benn restaurant bi nga xam ne mi ngi woon ci zone fret bi restaurant bu bees la woon sax ñu invité ñu ci kuñ ci invité délégation boo xam ne ku ñu naan Malick Seck mu ne. moom mooy euh, frère la première dame euh, du Sénégal Mariam Faye Sall ànd koog kan ànd koog Doudou euh, Doudou Diop retraité de AH de SHS donc moom délégué moom moom moom SUTAS moo ko yónni ak benn retraité AHS bu ñu naan Seydina Diong moom tamit AHS moo ko yónni ak Youssou jóob protocole la woon ci salon d'honneur ak suñu benn délégué du personnel mu tudd Leyti Diouf. moom mi ngi ñëw ci turu Alassane Ndoye mu nekk suñu secrétaire général boo xam ne mooy SUTAS siège bi ñu toog nii ak Cheikh Tidiane Ndiaye moom moo nekkoon directeur AHS ci ci jamono yooyu donc ñoom ba ñu ñëwee daal euh, ba ñu waxtaanee ba pare ñoom daal wax nañ ñu ne première dame bi Mariama Faye Sall lii li li ñu dal metti na ko lool ba ci kanamu yàlla buggee ko noonu te dinañu jàppale foofu jàppale mën a yem dinañu gunge dinañu teete dinañu tatagal ba keroog ba ñuy dugg ci suñu ay droit wala ñu ñu dugal ñu ci yeneen structure état comme nu ko monsieur Mathiako Bessane directeur des transports aériens waxoon donc ba foofu daal euh, mais boobu depuis booba yàlla def ñu toog ñeenti at tamit nii ñooñu dégguñu leen dégguñu Malick Seck dégguñu Mathiako Bessane dégguñu Youssou Diop dégguñu Marème fay Sall ah. ba ci ci booba booba nag maa ngi bëgg a fàtte sax parce que lam ñu joxoon comme comme comme daanaka lu ñu mën a dëfal maanaam mayoon nañu billet màkk boo xam ne pour ñun personnel bi pour pour mu defal ñu rek mayal ñu ku ci nekk euh, ñeent fukki junni ñaata deux cent mille deux cent mille ci wolof def naa loolu la waaw waaw ñeent fukki junni yoo xam ne maanaam comme korité lañ demoon ñu ci leelatul xadri lañ ñu génnee guddug leelatul xadri léegi euh, korité lañ doon jëm ñu may ñu ko yàlla def ñu defee ay korité ah ñu toog toog lu yàgg ah euh, déggatuñu leen déggatuñu leen déggatuñu leen ba benn moment suñu mbokk yépp ni nga xam ne amatuñu fu ñu jëm amatuñu lu ñuy def donc amuñu couverture médicale ñenn ñu ngi feebar seen njaboot ñu ngi feebar amuñu lu ñu fajoo ñoom dàq ñu leen ci société ba léegi ñu ñu ngi leen waroon fay amul lettre de licenciement ñoom ñëpp ay embauché la ñu woon ñun nag suñu état ñu noo ànd ak moom ba defar li nga xam ne au moins Sénégal jëriñu ñu ba yóbbu na turu Sénégal ci bitim réew lu mel ni Niger lu mel ni Mali lu mel ni Accra et cetera lu mel ni bene fu ne bu ñu ko saytoo dinañ ko gis ñooñu ñëpp ci suñu expertise lenu lenu lalee seen aéroport ci kaaraange bi nga xam ne moom leen yaakaar ne joxoon nañ ko Sénégal fii ci plateforme bi moom mooy daw foofu ba léegi donc ñun ñu gis ne ñun suñu wareef ci réew mi def nañ ko en tant que liggéeykat mu tuut te bëri ñu feeñu lu ndaw te lu ñu bëri ñu nekk ci naqar comme ñu nekk ci tiis def nañ suñu jaan wàcc na daanaka ci looloo tax ñu continuer Euh, ba nuy waxte jëflante nañ nag ak ak ay médiation ak lépp def nañ ko mais dafa yàgg quatre ans yooyu ñii ñu ngi tëdd ci hôpital am nañu sax koo xam ne wàññeeku na ba nuy ba nu ba waaw xale bu ndaw boo xam ne daanaka fekkewul lii te bu doon suñu sago liggéeykat bu jàmbaar boo xam ne euh, ay kilifaam yi ngi toog musuñu am ci moom xaar ma yàlla donc ñun daal attaqué wuñu kenn politikuñu ànduñoo Masamba ànduñoo ma demba ñun ay liggéeykat dong la ñu woon ci aéroport ba doon liggéey suñu ñax ngir lan suñu kaarange réew si lan aéroport muy zone stratégique bi nga xam ne moom la réew yépp nga xam ne képp kuy defkatu ñaawteef war nga faa mën a jaar pour defum ñaawteef àdduna ñu ànd ceeg état du Sénégal defar ko ba mu baax ñun lu ñuy lu ñuy xaar daal ci état du Sénégal moom mooy Macky Sall mooy suñu président di président ñëpp madame la première daam di moom it di tëddee njaaxaanaay di yaayu ñëpp ñun tojuñu xeexuñu waxuñu diwa tooñ xamuñu ku tooñ ñun liggéeykat lañu woon lu ñu bëgg moom mooy arrière de salaire yi gannaaw dàq guñu ba léegi arrière de salaire yi ñu mun ñu ci compal sax ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñooñu ñoo ñi ngi ci ci ci njàqare ñu mën a suqaliku donc euh, kër yi génn nañ ci waxuma loolu sax ñun lu ñuy wax sax daf ci am euh, ba ba ñuy génn ci booba la société ADS su Pape Mayel ba ñuy génn yoraloon nañu à peu près 2 milliards yoo xam ne fayu ko woon loolu moo taxoon ñu am ay arriérés de salaire yu métti ñu dem ak moom ak suñu administration provisoire pour soulager ñenn ñi booba génnaguñu mu mu mu mu ñu accordé ci trente millions. benn koom boo xam moom la ñu jox pour ñu soulager ak dépense yu ndaw yi loolu sax demoon na ba dagg donc moom bokk na ci li nga xam ne moom moo dem ba nga xam ne won autorité bi kat ñun dañu war a génn te fu mu ne noonu tegaloon nañ leen matériel bu impeccable bu mucc ay donc am na beneen engin aussi boo xam ne daanaka ABS moo ko moomoon lépp ci defar rek maanaam boddiwuñu kenn ci li ñu doon def ñi nga xam ne ñoom sax ay waay laago lañu ABS suñu société utoon na demoon na ba bitim réew Allemagne fu ne indi fa benn engin bu ñu tuddee engin buy yóbbu waaye yàlla yooyu mooy engin de transport à mobilité réduite booba ñu ngi ko doon bugg dugal teg ko ci aéroport mais dugalu guñ ko woon yàlla def ñu defal ko ba mu ñoŋ teg ko pour war ko dugal bi ñu ko waralee dugal kii wuñu AHS pour soulager ñu la ñu wax mooy AHS bi nga xam ne ñoom ñoo ñun la ñu bokkaloon euh, ak CREI pour ñu saytuñu état mujj ko moom ñun suñu engin boobu dañu ko concocté woon ak AHS ak directeur bu ñu naan Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye léegi booba pour mën a euh, soulager kii pour mën a yokk salaire ñu mën a defalu mais moom ba ba ñuy génn ci 2 millions yoo xam ne waroon na ko fay ci engin boobu maanaam fayu ko woon yoroon noon na ay arriéré yoo xam ne yu 36 millions ñu xalaat ne 36 millions yooyu ba ba ñuy génn bu fekkonte ne euh, de bonne fois ak dimbali euh, travailleurs yi bu ñu ko joxe woon suñu administration provisoire xëy na sax moom mu xaw a alléger souffrance bi 2 milliards yi aussi tamit bañuñu ko woon suñ ko joxoon suñu administration provisoire moom mu alléger souffrance yi ñu ngi ñaan Sénégal ci loolu lay terminer di ñaan président bi di ñaan askanu Sénégal xamal leen ne travailleurs yii nga xam ne ñoom la ñu doon mosuñoo yàq aéroport mosuñoo am xarma yàlla kenn 14 ans yu ñu fa def yëpp bu ngeen laajee ñooñu doon jëflanteel yëpp ay ay yaraaye rek lañ ñu jox bu ngeen laajee ñi nga xam ne formé lañ leen ci ci bitim réew suñu naataangoo naataangooy Sénégal jéegati nañu raayoo Sénégal ba fa mu war a dem vraiment ñu ngi leen di ñaan wasalaam ñii ak man ñun ñëpp sonn nañ